Baye Maodo Mokhtar yàlla yàlla nangu siyaar yëpp yàlla yàlla jàppale leen maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan ci màgg yàlla ak baaxu rasulullah réew mi ne ñëpp ñu jàmm loolu jàmm-jàmm rek ko gën yàlla jàmm jàmm-jàmm ko gën di jaar suñuy xalif généraux Pape Doudou Mokhtar mi nga xamante ni tey fii bërëbu boppam la muy xalifa général des Layènes ay sëñ Mountakha Bachir damay wax naan Sénégal am nañ ay exemple yu am solo suñ mu ndaxaa foo ko gis rek ndeysaan muñ nga ngay jëkk seen kon jàmm rek la ma woote te magum yàlla la yàlla ko fi yàlla bàyyi moom jabootu Seexul Xadiim di ñaanal sama pap suñ béy si Mansour yàlla bàyyi fi pap mu laay si yàlla bàyyi fi ak xalif généraux yëpp yàlla defal leen jàmm di ñaanal borom réew mi président Macky Sall yàlla defal ko jàmm ñii ut comme moom yàlla defal leen jàmm rek wax rek la ku invité la man ak ñoom da man moom dañoo yàgg ba muy def semaine culturelle ci école yi. boobu il était plus jeune boobu xale la man teen xale la muy toog suma kër ci taatu gerte tubaab bi dama xaar suma biir kër gerte tubaab moo amoon ci biir kër ga boobu ñoom Marco ak gaayam yi la doon àndal ak ñoom musaa bi théâtre ak Moustapha bi di théâtre tey ñoo bokkoon benn groupe may ànd ak ñoom ñuy ñëw suma kër si Cambérène rek su ma yeewoo tooga moom di waxtaan ba yàlla may kër yi pourtant li mu am ni bett ma relation boobu laa seq ak moom jiitu na tey événement yi xëy ni te nag li am solo du soppeeku ni mu mel loolu la mos a rek a tax ma ñëw ci euh, programme bi ku ne xam nga ne àjjuma xat na xat nañu ñu ngi jóge ci appel sonn waaye nit ku ko jar jar na ko moom jar na ko bisam bi yàlla na ko yàlla def muy mu koy feet ay yàlla guddal fanam te may ko te gën ko jubaleeg borom kër gi muy président Youssou Ndour yàlla defal ko jàmm ak waa ak Birane ak Jalle ci barkeb Seydina loolu rek a tax relation boobu yàlla moo ko jëkk santaane xam nga nit ñi ba tey comprendre euh, li ma war ci ñoom moo war ñëpp parce que ay jullit lañ jullit yàlla dafa ni lislaam benn buum la na ngeen ci jàppandi bu leen tàqalikoo looloo waral ma bëgg Seexul Xadiim parce que digalu suñu borom la looloo waral ma bëgg Sidi Hadji Malick ma bëgg Saadu Abi bëgg bëgg mag ñëpp ma bëgg parce que tey euh, kilifa diine ñun ñëpp dañoo am droit ci ñoom ñu bëgg comme ni ñu bëgg may wax ci Seexul Xadiim du waxuma ko pour kenn di jox dara parce que dëgg la ci man la ci man may wax ci Seydi Hadji Malick Serigne Babacar Sy ci man Saadu Abi yi la ci man Seexul Islam Euh, Seexu Thiénaba dëgg la ci man parce que loolu li may li ma ko war a defee loolu la ñëpp war a def parce que ñun islam la ñu am amuñu leneen même ñi bokkul ak ñun diine sax dañoo war a joxante ak ñoom loxo parce que maa ngi dégg ñu naan dialogue islamo-chrétien loolu ay faux débat la dialogue islamo-chrétien koy dialogue def fekk ngeen am problème parce que bu amul woon ak chrétien yi euh, defe naa diggante kon pàcc bi ñëw ñu nii may nga lax koo amul jàmm doo ko may nga lax dañoo waxante dëgg. kon dara amu fi jàmm rek a fi am relation boobu la am ak kër diine bi ah dañoo xamul adduna rek saaga ku la mag sax musiba di leen ŋàññi sax musiba la di wax ñu lay tontu sax musiba la toog di leen seetaan xam ni yàlla muy jàpp dina jàpp euh, wax waxuma la waxu kilifa diine mag magu yàlla ku la mag. li olof naan kolam mag ëppalay sagar a mag rek ba pare moo mënatoo ko fay mais ala rawatina muy seetu Seexul Xadiim muy seetu seeti ajima muy ñutu yàlla pii mu lay leen kii maam maam moo demoon géej mu lay leen kii maam mu puusoon géej yaa seeti ajima ni yaa xaayidal baari ñooñu duñu moroom kenn ku leen def morom duñu sa morom lu waaye na waxal lu waaye neex defal lu waaye def sa bopp nga ko def lu waay am yaa ko utal sa bopp ba nan dem ba ci kanam lépp daañu yi ah man de dama naan xale yi def leen ndànk rek dara warul tiita man de tiitu man wax dëgg yàlla tiitu tiitu daal tiit dafa gis que nit doomu aadama doomu aadama rajo ak lu mën a xew rek ah man daal su ma xale yi nañu moytu wax ju bëri baaxul coow lu bëri baaxul lu dul jàmm wax naa ko jàmm ka gën te ñëpp ka moom ah, épargne ma kii bàyyi ka la ñëpp ka moom comme kii ci réew mi mu ngi ci réew mi nañ ko may jàmm yow miy ut utal jàmm ba kar ngay egg fa nga jëm parce que tey Ibou Seyni bu fekkee damay ut dara ma yàq benn mbir may xale ma génn grève toj kaar ëllëg ma yokk ma ëllëg secteur boobu su ma ko yoree naa xam ne lii maa ko kon ku ko du ma neex kon ñun ñëpp nañu defaroo te ñu atte ci mande rek alayhi salaam bi akiman akiman yàlla mooy attaquant bu mag bi te ku mu atte bu la tegee ay daan di nga xam nañu gëm yàlla gëm yonent bi te ut jàmm jàmmaa gën lépp yàlla lu ko yàlla defal barke si waaw ah, lu ma koy wax de mooy li ma wax li ma wax tout à l'heure rek mooy nañu ut jàmm rek gis nga li dul jàmm soxna si jàmmaa ko jël barke Seydina Limaamul ma lu waaye taal ëllëg yaa koy defaraat kon moom nañu ut jàmm rek xam ni yàlla nañu xalaat bis ba nga xamante ni bis ba nga xamante ni euh, yow rek yaay jàkkaarloog sa borom ñëpp ci yem mooy bis bu ñu lay takk dina dugal ci suuf amul ku ko yàlla épargne ñëpp ci yam kon balaa boobu nañu rafetal yi xew ci dëkk bi rek te xam ne Sénégal nag réewu jàmm la kenn mënu ko yàq kenn mënu ko taal mag ñi ñaan na li di ñaan ba pare dem seen yoon barke seen aali yow yaay yàqu rek yërëm xale yi te dimbali leen te jàppale leen parce que xale yi bëree bëri ñàkk nañ waajur amatuñu liggéey ñu leen toppatoo nag ñu yor seen i njaboot bu ñu bëggee agression bi wàññeeku ak leneen wàññeeku daal yàlla yàlla def jàmm ci àddina def ko ci réew mi barke bàyyi la asalaamaaleykum wa rahmatullah mooy gars yi Yay! I say sorry for Wait, wait, wait, wait. Joyeux anniversaire! Amour! Joyeux anniversaire! Amour! Joyeux anniversaire! Amour! Joyeux anniversaire! Amour! Bespoudel aussi, mon Bespoudel aussi, mon Timan, timan. Bespoudel aussi, mon Amour! man ci man amin waaye dama koy aaye wuu merci am na chocolat gâteau bi am na chocolat dama koy aaye gâteau bi am na chocolat Kouthia gâteau bi am na chocolat merci merci merci merci aca lépp leen ko ku ne koktal ba koktal la dix heures et la baax aca aca mbokk yi internet yi maa ngi gërëm ñëpp si di fi teew ñëpp di gërëm bu baax ñi nga xam ne nag mooy suñu média Dakar Live Univers Info ñu déclaré wu ak ñu déclaré wu ñëpp waa suñu média TV Dakar Live Univers Info ñoom ñëpp ñu fi teew may lambar lambar ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant gis nañ seen teewaay fii ngeen dundoo ko ñun yàlla yàlla defal jàmm loo leen di laaj El Hadj ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. la fekk waaw gannaaw bi gis mbooloo bu takk bu nga xamante ne wuy si la tey lan ngay wax ñi nga xam ne ñoom ñoo teew si si. anniversaire bi le 12 mars la waaye dañ koo xëcc def ko le 10 parce que lundi bi day fekk mu passé te lu passé dima dima lundi day fekk mu passé dimanche le 12 mars la ma bokk ko ki nga xam ne mooy dem seel la ci coon sekk. ñu ne la nañ jël ajjuma ji def ko ñaan boole ko ci ñaanal la ko ndax dimanche bi personnel bi du fi nekk ñu bëri duñ liggéey te dañu bëggoon ñu médiatiser ko ci biir émission Kouthia ndax moo sax nañ ñu boota ñu profiter pour def ko ajjuma pour ñëpp mën koo seetaan mën koo fekke ñu ñaanal ci ki xam ne moom mooy Thione Seck yàlla ko yàlla xala ci àjjana gën a kawe waaye tamit ñi ma nekk xam ne nekkal yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg tamit personnel bi nga xam ne mooy euh, administration groupe Futurs Médias yàq yi mën na dem fay si ki nga xamante ni moom moo di euh, ñu koy ñaanal yàlla suñu borom yërëm ko. waaw ñu bëggoon a xam waaw ay ñu bëggoon a xam tey euh, seen seen la ci bés. Ah, dañ koy def parce que xam nga Thione dafa nekk koo xam ne ku baax la bi ñu def projet CEDEAO bii ah bi mu koy def ah madame Ba dagg naa ko. madame naa ko mu ngi woon premier part bi mu ngi premier part bi maa koy jox nii waa internet waaw premier pas bi site bi ko moom waa site bi ñëpp a ko moom yéen yéen a ko moom waa peut bi bi seen laay jox internet bi waa kay très bien kon léegi ñu ñu dem ci tontu yi yii na dem fële wala ji ni ñu xaar yi gën a ko ci kaw d'accord ñu gis tey sa bés bi nga wàcceel ci kaamil Papa Thione Seck ñu ko yàlla ci borom yërëm bëggoon a xam lan moo ko waral. waaw parce que dafa nekk nit ku baax. deux euh, mille vingt et a astafurlah deux mille vingt dafa nekkoon ci projet bi nga xam ne moom mooy album Sadayaawa boobu mu woomati mu tombé douze mars may ñëw di xool ban fan laa mën a duggee ba mu ne fii baax na maanaam mu ne ma déglu dinaa la ko envoyé ci clé nga gën ci xalaat fan ngay duggee. waaye ñu toog a seet ma ne ko man de maa ngi dem kër ga ndax tey la sama anniversaire mu ne ma xanaa da nga ko bëgg a souhaité war a da bëgg ma compal la ma ne ko déedéet tey laa judd génn sama carte d'identité jox ko mu may code na ma lii tax ma yow ñu ko maa ngi soog a comprendre yow mi nga mel man noonu laa kon yow bés bi daal wax dëgg yàlla yàlla yàlla def ñu koy féete à chaque fois kon tey bu yàlla defee tey sama anniversaire jege moom fekk ko fi wax jooju déclenché sama xel dama ko ci delloo njukkal jox ko gisoo fi jaaga gisoo fi waali gisoo fi kenn koo xam ne euh, dañ leen a invité parce que li ñuy bañ mun yaakaar ne dañ koy def pour ut dara wala dañ koy def pour jéem a yëkkatiku wala dañ koy def pour dara. dañoo lancé message bi rek ne yéene na leen ñoom ñu fekk ko te def nañ ci suñu ñaan ndax sang bi toog bi Ibou Seyni Laay def naa ne yu ñàkk fayda tax koo jóg di ko tax a jóg moom mooy ñëw seedeel taxaw taxawaay kilifa diine yi ndax moom la ñuy ubbee saa yu commencé kilifa diine la tey boo fi xoolee jàngu bi yónnee fi ay ñoo xam ne ñu leen représenté monseigneur Théodore Adrien Sarr cardinal Théodore Adrien Sarr monseigneur Benjamin Ndiaye abbé Jean ñoom ñëpp am ñu leen ci mbooloo bi ñoo xam ne teew nañ fi ëttu diine yi ñëw nañ sëñ Abo Mbacke xarit sëñ Fallou Mbacke yónnee tey ñëpp ñëw wax yàlla kontaan nañu